asalaamaaleykum suñu mbokk internet yu seen flash comme ça, euh, su ne mbégte ak contenté la ñuy ànd ak yéen ci seen ëttu xibaar di euh, seen flash café comme nañ koy defee ça, sonné point du jour dañuy waxtaanee ci li nga xamante ne moo di mbirum doomu jàngoro jo di euh, coronavirus tey nag bu ñu xoolee jot nañoo réaliser lu toll ci 807 tests te bu ñu xoolee am na 89 yoo xamante ne dañoo ñëwaat positif waaye 86 yëpp ay cas contact suivi la am 3 yi nga xamante ne ay cas de transport transmission euh, communautaire la waaye nag euh, bu ñu fàtte ne tey bés bi euh, Sénégal jot naa enregistré lu xamante ne lu doy waar lu metti mooy dixième décès kooku nag mu ngi am lu toll ci 58 ans fële ca hôpital bu principal te moi ngi dëkkee fële nga xamante matin moi di Medina. fële ca Médina Gounass bi nga xamante ne dañ fa daan amal ay euh, cérémonie religieuse ñu koy woowee euh, Daka ñoom nag daanaka fu mu toll nii enregistré nañu li nga xamante ni moo di ay cas ci coronavirus bi loolu nag dara waralu ko lu dul la benn boutiquier bi nga xamante ne dafa jógee fële ca Vélingara ñëwaat foofu nag moom nag jot naa wàll ñenn ci ñi nga xamante ne ñoo yeewu bërëb boobu nga xamante ne fa lañ daan amee lee lépp loo xamante ne ay euh, cérémonie religieuse la lu jëm ci Dakar. ginnaaw euh, ñoom ñi nga xamante ne ñoo fa nekkee ñoom nag daanaka dañoo yéex a tëj li nga xamante ne ñoo di seeni i jàkka yi nga xamante ne fa lañ daan jullee mbir moom nag tax na li nga xamante ne moo di cas contact bi ñëw foofu ci seen euh, dëkk boobile. ki nga xamante ne nag moo di professeur Moussa Seydi ba léegi mu ngi wéy di ñaax ñi nga xamante ne ñoo di askanu Sénégal ngir ñëw jël li nga xamante ne mooy jumtukaay yi leen euh, jox li leen digal ci lu jëm ci port masque yi moom nag nee na waruñoo yem foofu rek ndax ñi nga xamante ne ñoo di askan wi. wi waruñoo yem donc ci euh, port masque bi waaye tamit dañoo war a utiliser li nga xamante ne ñoo di ay euh, lunettes ndax moom ba tey jii nii mu ngi xam leen que Sénégal fu mu toll nii euh, dépassé na li nga xamante ne mooy baaru 1000 cas bi loolu nag war naa tax ñoom seen jëm bopp ñu yeewu ki nga xamante ne moo di ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ki nga xamante ne moo di Aly Ngouille moom nag war na cee jël ay ndogal yu gën a sévère ndax askan wi ba léegi naam am na ñuy sol masque waaye ba léegi am na ñoo xamante boleh woyal li wuñu ci digal yi nga xamantene jox nañ leen ko lu jëm ci aide d'urgence eh, fele ñi nga xamantene ñoo di wa sénégalais de la diaspora ki nga xamantene mo di njitu rew bi mom nak jot jël ap eh, ndogal mom nak fu mu toll jël na lu toll ci 12,5 eh, milliards jaglel ko ñi nga xamantene ñoo di modu modi nek fele ci italie moom nag mu ngi xam leen ne kenn ku ci ñoom war naa jot lu tool ci 300 euros loolu nag buñ ko xaymaa ci suñu xaalis mu ngi toll ci 200 euh, 000 francs ngir jàppale ko ñi nga xamante ne ñoo fa nekkee ci euh, crise sanitaire bi nga xamante ne daf leen lal fële ca Brésil nag ñoom nag jot nañoo franchir li nga xamante ne mooy la barre des deux cent mille mu doon mbir moo xamante ne bu doy ci ñoom ba tax na fu mu toll nii ñoom seen jëm bopp ñu ngi amee jàkkaare ba xamatuñu leen lu ñu def ngir euh, jéem a dimbalante ñoom seen jëm bopp. lu ñëwal tele ak euh, programme ki nga xamante ne moo di El Hadj Ndiaye bu 2STV euh, yaa awa ak ki nga xamante ne moo di Birane Ndour ak Bouba Ndour daanaka dañoo am problème ndax. Euh, Birane Ndour ak euh, Bouba ci seen jëm bopp tey ñoo ngi leen di xaarandi fële ca gendarmerie ginnaaw bi nga xamante ne El Hadj Ndiaye mi nga xamante ne moo nekk 2STV yi di toppee ki nga xamante ne moo di Yaa Awa ci émission bi nga xamante ne moo koy amal fële ca TFM moom nag nee na émission boobu noonu du seen émission émission moom ci boppam la ndax ki ko maam euh, ki ko moom ci ay élément am ndax caméra maanaam ci boppam moom moom moom émission bi loolu nag waral na mu porter plainte ñi nga xamante ne ñoo di waa yàlla dinañ leen dégg fële ca gendarmerie bu Faidherbe dañuy dem fële ca tuuba ab mbir bu doy waar moo fa am ki nga xamante ne moo di wuyoo ci euh, Maya Diallo moom nag dafa am benn problème ak ki nga xamante ne moo di borom këram ay werante yu sew looloo waral nag mu jël marmite bi nga xamante ne ci la tegoon euh, diwlin sotti ko ki nga xamante ne moo di borom këram moom nag ci fu mu toll nii mu ngi nekk ci benn état bu xaw a doy waar mu ngi fële ca hôpital bu Jannatul euh, Mahwa ki nga xamante ne nag mooy euh, kii jëf euh, ñaw teef bi le mooy di xale bu jigéen bi waa Seneweb ñoo ngi xamal ne que ni moom fu mu toll nii ñoo ngi koy wër ngir euh, jàpp ko. ndax mbir mi bi mu koy def ci ma amoon na ki nga xamante ne moo di seen doom bu amee woon ñetti at ci seen wet waaye ki nga xamante ne moo di borom kër gi nag moom nag fu mu toll nii daanaka lakk-lakk bi xaw na métti torop ndax fu mu toll nii ki nga xamante ne moo di euh, commissaire u Jannatul euh, Maxwa di wuyoo ci turu euh, Basiru Saax moom nag fu mu toll nii yebal na ab ay élément ngir ñu dem seeti ki nga xamante ne moo di xale bu jigéen bi ngir yoon def li nga xamante ne moo di yoon yéen suñu mbokk internet yi tey euh, fii la ñuy ndax keppee suñu euh, xibaar di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci même euh, chaîne ak ci même heure laata loolu comme de ñuy woy di def ak yéen mën ngeen woy di xibaaru ci seen site bi ngeen xamante dina affiché wu ci seen barre de l'écran di www